jëgganiku waaye itam euh, kaso yi fees dell ñu ond ci ak moom Ismaïla Madior Fall am sax projet def léegi benn loi bu bees boo xam ne day permettre ñu encadrer la criminelle parce que en matière criminelle la détention n'est pas n'est ba nga xam ne da ngay gis leen jàppee en matière criminelle mu ngi mel ne trafic de drogue mu ngi mel ni ay infanticide mu ngi mel ni ay vol aggravé da ngay gis yenn saa yi dañuy ñu bari dañuy toog kaso ñett ba ay ñeenti at te kenn du leen loolu moo tax léegi dañu bëgg a def benn loi boo xamante ni encadrer la détention en matière criminelle c'est-à-dire que nit même suñ ko arrêté en matière criminelle kaso su fa defee at ñu juge ko wala ñu bàyyi ko jën ko wàllub yoon bi ngeen doon euh, seetaan léegi yi li kàddu muy ko yëkkati tey ci suba ci cérémonie bu conférence nationale euh, bu euh, chef de parquet yi ñu fa doon def nag moo di waxtaan itam ci jéego ak lépp li leen di xaar ngir ñu taxawal ci réew Sénégal li nga xamante ni itam waxtaane nañu ko ci lu bokk na ci kaso yu fees yi ak itam mandat de dépôt yi gën di bari ci lu ñu nemmeeku joxe wàllub yoon dellu na fii ci solos boobu leen daje ñu ko. conférence de mooy lan mooy at bu nekk su ñu demee ba at bi di pare jeex mois de ministre de la justice day daje ak procureur yi nekk ci dëkk bi yëpp ñuy xool ni nga xamante ne appliquer loi pénale bi ndax respecté nañu li nga xamante ni mooy ak xeefu citoyen yi ndax jël nañu en charge criminalité ni moo soxol citoyen yi ba at mi jeex toog def benn bilan su ñu defee bilan bi xool li nga xamante ni moo ci dox ak li nga xamante ni def cee sooxe ñu xool luñ koy rectifier mu ko gis ne ginnaaw bracelet électronique yi beneen loi boo xamante ne mën na xeex bu baax kaso yu fees. waaw mën nañu wax ne quand même le ministère de la justice fait des efforts ci li nga xam ne moom la ñuy wax saa su ne muy le respect des droits fondamentaux maanaam respecter àlleefu nit ki loolu daf ci bokk ndax bu fekkee ne da nga def jëya ñu tëj la ci bu ñuy wax tëj. dañuy wax détention préventive en matière délictuelle warut a dépasser juróom su fekkee nag crime la l'instruction foofu euh, dafa illimité wu mais Sénégal koo xamante ne amaana la muy sax sàcc wala ñu fekk ko muy toog ciné bar wala amaana ci na ndaw yi ci ay délit lay def mu toog ci kaso lu toll daanaka ci juróom ëpp ko yenn saay at yenn saay ñaari at gis ñoo xamante ne dañuy luubal ay millions daanaka ay milliards bu ñu duggee ci kaso def fa benn weer ñaari weer ñu dem eh, wutal leen leen lay ñu jox leen liberté provisoire wala ñu bàyyi leen donc lii nga xam ne indi nañu ko muy loi bu bees xamante ne moom mooy les longues détentions rawatina préventive c'est une bonne chose et ba li nga xamante ne mooy yàgg ci kaso yi mu wàññi ko kaso yi muy feesee délai égal solution la ngir joxaat nit li nga xam ne moom mooy gëddaam muy àqam ak yelleefam parce que dugg naam da ngay perdre li nga xam ne mooy sa liberté waaye waroo perdre sa dignité. Euh, waxtaane nañu ndaje bi itam yu bari yi. ndaje boo xamee xalaat li askan wi càmbar ñëpp fekkam benn panel du mooy indi solution ci métit wu ñu jooy lu ëpp ñeent fukki at bi ñu bëggee am lu ñu wàññi tabax kaso ba ci sibi xutaan parce que yomb na leen wax ba leen kaso benn ñaareel bi ci des benn jour maa ngi proposé ni pourquoi pas ñi nga xam seen benn signal de mandat de dépôt ñu boole seen stage ñu def un mois de prison daf ñu bokk c'est-à-dire tëj moo yomb ci euh, benn façon boo xam war nañu ko xoolaat parce que gis nga privation de liberté dafa dafa doy waar dafa doy waar ba nga xamante ni bii euh, waxtaane pour nit ki détente yi mu bañ yàgg ci kaso bi kaso yi dafa dafa dafa surpeuplé wax boobu discours boobu discours bu ñu miin la dégg la pour nag séduire nit yi pour ñu foog ni yaa ngi liggéey nga wax ministre wax ni yaa ngi ci pexeem xeex loolu mais du loolu moo ñu rassuré ñun. beneen yoon bu gën a gaaw wàññi mandat de dépôt yi wàññi nit ñi ñu gaaw ak ay magistrats yu doy. yoo xam ni dossiers yi duñu leen fàtte loolu mooy xeex bu njëkk bi boole ci itam mettre dans de très condition conditions ñiy gàr ñi nekk ci biir kaso yi cest dire que dafa am loo xam ni lu palpable la lu ñuy gis la discours panel du ko lijjanti ay décisions yu ànd ak ay loi ak ay finance moo ko yóbbu ay kaso yu doy recruter ay magistrats yu doy comme ni ñu defee seen centre bracelet bi naka na si keroog bi ñu ko présenté ñëpp dañ ko apprécier parce que jéego bu ñu doon demander la li ñuy mooy bu ñu bëggee indi solution ci wàññi mandat de dépôt yu bëri yi du lu ñuy discours bu ñuy wax ci ay mais décision bu ñuy jël la def ci lu concret ngir ñu wàññi mandat de dépôt dafa yomb Sénégal ñëpp ni ñëpp xamee ni ginnaaw ñaar fukki fan ak benn benn lay boofu la ñëpp xamee ni coow bu ndaw ñu doon la mandat de dépôt loolu nag méthode boobu la ñu war a génne ci bopp nit ñi ba nga xam ne du ñu na lépp kaso kaso kaso laneen la quoi Euh, Mansour ñu wax rapport Cour des comptes bi mu génnee ak léegi réaction yi dañuy gën di bari euh, kenn ci ñi ci waxum civil coordonnateur bi moom jàpp ne euh, alalu askan wi la ñu jël caax-caaxee ko Birahim Seck ci njiitu réew mi waaye itam yoon ñu fexe def seen kem kàttan ci ni mu gën a gaawee ñu mi muy koppar gi nga xamante ne moom la ñu dajale woon ngir xeex jàngoroy coronavirus luubal ko waaye itam njeexital ak lorange yi ci tukkee ñu ondu ci ak moom wax ak tontu maanaam li ñuy wax procédure contradictoire Cour des comptes nga xam ne joxor bi nañ leen baaraam ñooñ tamit daal di tontu en principe ci loolu civil li ñu xaar mooy intervention de la justice li ñu xaar ñun forum civil mooy président de nga xam ne dañu tudd ci mbir mi mu jébbal leen justice ba sénégalais xam dëgg bi fan la fee fàtte njombe bi nga xam ne ku des comptes wane na ko ci rapport am mi ngi am ci jamono joo xam ne ay sénégalais ci covid mi ngi am ci jamono joo xam ne ay sénégalais ñi leen dóor ci mbedd mi mi ngi am ci jamono joo xam ne ñu dajale seen a tuuti di ko jox nguur gi ngir ñu xeex covid 19 ci jamono joo xam ne li dañ ko tëj rap donc li France bi di xaar dëgg-dëgg mooy président de la république intervenir bi daal di intervenir syndicat autonome bi ëmb jàngalekatu moyen secondaire u Sénégal yi ngay artu secrétaire général bi di xam leen ni ñoom daanu am ay action yu ñuy defee njiitu réew bi daal di fexe ba ñu euh, leeral ci mbir mile ne euh, moom moo tukkee ci rapport Cour des comptes ñu déglu ko liñ ci war a fàttali rek mooy yi nga xam ne ku nekk da nga làmboon sa poos mu tuuti mu néew nga joxe dara ñun syndicat yi buñ ñu ko jébbati ko jébbal ko nguuru Sénégal jàppoon ne loolu suñu contribution la woon ci xeex mbas mi dafa lëmbe woon réew mi nag ñun buñ ko yëgee am nañ ci mettit loolu loolu loolu loolu la jàpp ne tey ñëpp ñi nga xam ne nii dañu nekkoon ci ministère yi ñu lim ba pare luubal le président Macky Sall mu jël say responsabilité ñooñu ñëpp nga xam ne seen loxo dafa laale ci loolu seen kaw mënuñu continuer di nekk ci réew moo xam ne mi maa tey ak impunité waru fi mën a continuer law ba faw loolu nag moom mooy taxawaayu syndicat yi xeex boobu dañ ko continuer di wunu leeral incha allah ci xar sunu tànk tubéy ngir ay leeral mën ci tukkee ba tey ci ñeneen moom tàmbali nañoo sax def ay jéego mu di ay député Aminata Touré di prix ak Guy Marius Sagna bu Yewwi Askan Wi tey ci suba la ñu déposé ab question d'actualité moo bi indi ay tontu ci ngàbbinu fond force Covid 19 Mohamed joble article 94 bu règlement intérieur assemblée nationale ñooy may député ñu position ci membre gouvernement au Sénégal jëm ci ay questions nationales ak internationales moo tax déposé ci kaw table président wu assemblée nationale dina tax conférence des présidents vidéo ci lu gaaw ci ay séance plénière yu ñëw yu ñu réservel question orale député Aminata Touré ak Guy Marius Sagna nga xam ne ñoo déposé question d'actualité yi wax nañu ne noppi nañu ngir tàbbi ca séance bu interpellé gouvernement bu Sénégal question d'actualité yi soxol rapport Cour des comptes wi nga xam ne ngi nii ñu ngi koy waxtaane ak di ko joobe ci réew mi seen ndaje bu mujj bi sax député assemblée nationale bii di addu ci mbir bi ni mel wane woon bëgg-bëggam fexe taxaw temb ngir yëq ak i njumte yu ñu gis ci rapport Cour des comptes bi ko ba mu leer naññ ba tax ñi ci laale ñu ma leen tuuma yóbbu leen fa mbaxana doone benn ci ak fàttali cour de comptes dafa épinglé gestion covid wax na ne am na ci ay faute de gestion ak infraction pénale ci atum 2020 aña daan na ci relevé ay conflit d'intérêt ak entorse su jëm ci wàllu code des marchés tey sàkku itam iteeg information judiciaire ci lu mu gàtt-gàtt fukk ci ay responsable boobule ñu ci euh, tuumal ay dage yu bari muy directeur de l'administration générale et de l'équipement kondiko ci Maïssa Babou économiste euh, ñoom ñile euh, mission bi ñu waajal waaye itam coordonné programme budgétaire bi ngir mën a dajale koppar ya nga xamante ne ñoom ñoo waaye nag mu rax ci dooli ne règle gestion bu ñu ko jalgatiwul dage mënut dépense boo xamante ne newul ci budget bi ñu déglu ko comptabilité la ñuy def wante comptabilité nag dafa am matériel am xaalis kon ci ñaar yooyu yëpp lañ koy xaar xaalis bi dafa ko war a sax préparé déwén lii war nañu lii war nañu ci suñu ministère nekk lañ fa def ne lii lañ wote waru koo dépassé ñaar lépp lu ci nekkut amul droit comptabilité mën di doon muy bu privé bi muy bu public doxee mooy comptable bu bind moom it day gis ne ay lii ay porof ndono la ndax ministre damay sàcc kon rek. ñu gis ni euh, réaction yi dafay gën di bari waaye ñëpp ñoo bokk wax ne. dafa war a parce que xaalis la boo xam ne dafa am fu ñu ko jëmale woon. ko état la faaw mu am ak saytu. Cour des comptes itam bànqaasu état la def ak yunduloom gis ni am na. Euh, dama reetaan bi ma gisee réponse bi bàyyeekoo ci daaj bu ministère de. l'éducation et de la culture bi fi nekkoon euh, da sax da ngay sax reetaan <laughs> nee dafa am ñoo xam ni daf leen joxoon ndimbal après euh, sàkkuwaat ci ñoom ñu indi pièce justificative ñooñu ni ko noonu xaalisu gouvernement la yow jox xati ay ay ay ay ay lay yu yomb yoo xam ni mënul administration wala suñu gestion wu doxalinu ministère yu woyof na à ce point te moom moo wax mais bu keneen waxaatoon nga xam ni ñii naw la wuñu Sénégal yi nga xam ni ñoo yab Sénégal yi xoolal xad yi ñaata ci ay fajkat ñoo ñoo riposte bokkoon ci combat wu Covid 19 bi ñu leen di séddale seen ay indemnité dañu génn ministère de la santé moo leen recruter ak ñi nga xam ni collectivité territoriale yi recruter nga nekk gynéco ma nekk gynéco wala nga nekk sage femme ma nekk sage femme ñu tollom di def benn métier ci benn hôpital ñu jox la indemnité joxuñu ma indemnité. yow collectivité territoriale